maa ngi tudd Mouhamed Lo nekk secrétaire général union des horticulteurs mooy UDH mooy maraîchers yi activé fii si technopole bi. la parce que dañoo dégg ni conseil municipal bi dañoo war a daje suba pour délibérer fii si zone bi pour rembler ko njëkkoon nañ fi ñëw indi fi doomu Ousmane Wade ni dañ ko fay jox vingt cinq fii si kaw ñu ñu dem woowu gendarmerie de l' environnement. gendarmerie de l' ñëw ni fii ñoom bokkul seen compétence lii domaine compétence transférée yi ñu jox maire yi bii bokk ci zone humide yi bokk ci parce que fii c'est une zone non aedificandi kon boobu bu ñu xëyaatee tey dégg ñu ni suba dañuy def délibération ci zone bi dinañ ko dénoncer pour président de la république yëg lii xaw fii Maguette Wade la doomu Ousmane Wade mooy mooy moom moom moom Oatrans Oatrans dañ ñëwoon fii pour rembler ko pour def fi ay garage ñu leen fii mënul nekk garage parce que état bi zone bee classé na ko zone bi kenn waru ko rembler parce que fii réceptacle naturel la eau pluviale yëpp fii lay ñëw boo demee fee si ginnaaw syndicat station de pompage bi ñu fa def ndox mi pompe fii la koy déverser mu dem si biir technopole bi kon ko buñ ko rembler Pikine day léegi loolu loolu la ñu wax ni zone bi suñ ko mënul yàqali maanaam gasaat ko am nañ ay yoo xamante pour gasaat ko ba lac gën a yaatu ndox mi bañ di bañ di bañ di delluwaat Pikine nga xamante dafiy toog parce que ndox mi 24 12 euh, mois sur 12 daf fiy nekk ñun loolu la ñu wax ni nañ ko dénoncer pour président de la République yëg li bëgg a xew ëllëg fii Pikine lu fi xew suba ëllëg Pikine Ouest ñu xam ni ñoom déno ñun dénoncé nañ ko wax nañ ko ñi ñu ko war a wax wax nañ ko gendarmerie de l'environnement wax nañ ko Eaux et wax nañ ko Descos Descos nee na ñoom amuñu benn état maire yi amul droit laal fi benn garab amul droit laal fi benn ñax wax nañ ko démb ñun ko tey jii moo tax ñu rassemblé ni entre ñu jéemu ko sax def démarché nañ ñaata yoon ñu ngi koy bind mosuñoo tontu activités yi ñuy def yëpp dañ leen di bind pour ñu ñëw duñ ñëw mosuñ ñëw ministre bu fi mën si ñëw ministre de l'environnement ñëw na fi ministre de l'agriculture ñëw na fi ñoom mosuñu ñëw suñu leen invité duñ ñëw tey jii moo tax ñi nga xamante ne ñoo fi nekk garagiste ak ñi ngi fi nekk nii di fi def tisserand di leen fi bëgg a te ñun dinañ combattre loolu ba ñoom duñ duñ fi jógee lac bi kenn du ko laal ñu bàyyi ko ni mu nekkee nii ñu te dem fees del salle bi incha allah suba délibéré du fa am. Mhm. incha allah au franc le maximum suba délibéré du fa am. Pape Gorgui Ndong mënu fee nekk depuis 2014 jusqu'à nos ba pare tey jii mu dese ko lu dul ay ñetti weer wala ñeenti weer mu ni day délibéré zone bi pour def fi nangam ak nangam séddoo suuf la ñun xam nañ ñu mu demee. fii duñ ko duñu xullee bañ ko fi séddee parce que zone bi moo ngi nii dañ koo séddoo woon dañ dañ bi defee délibéré bi fii dañ woon dañ siy def nangam ak nangam dañu fi defal case des tout petits dañu fi maison de la femme defal ñu fi euh, caserne defal ñu fi lépp mais dara amu ci ñoo ngi dañ ko séddoo ay kër jaay ko terrain ñu ngi koy jaayee vingt millions terrain bu trente millions trente millions am na ñuy wax ne loolu ñu ngi ko fi jaayee ñun nag lu ñu xullee tey ba ñu ko fi jëlee ba du ko rembale pour jëlee fi ñu fi nga xam ne ñoo fi nekk di daal seen i doole tey ji wax ji loolu la wax ji daal wax ji li gën mooy loolu la bi gën daal du ñu xullee ba ñu ñu ko fi ñu koy ñu koy ñu koy kii voilà